Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. nga yaamu dafa mën a sañse moo tax ñun ñëpp yaakaaru ñu ne robe de mariée la man mii si sama bopp man mii ñi wax ne solo robe de marie man ci laa bokk xam nga fin bi kii bi publicité bi semaine bële la woon ah ñu koy doog a teg bi bii nii man kay gis naa ko xam nga ni mu mënee sañse tàmm ko rek macha allah lool moo tax ñun ñëpp ñu ne du robe de mariée mais ndekete finalement moom dafa demoon di pare pour yàq mariage bi waaye dina xam ne major la fii fekk non yaa ma ñetti seeyi la boole capable coupable ak criminel ndax xam nga lan moo tax mooy doomu ñaari bandi ñoo ko sekk yaa ma yaayam bandi la baayam bandi la kon moom mënul juddu sedde noonu mënul nekk. xare bi de mook yaayam demuñu bay ndax ay waga yaayam ay waga lañ ak ma kii rek naar demuñu bay bëgg a bàyyi yaayam gis nga foofu mu tëdd noonu mu ngi xalaat bi yoon diilam bés bu ko génnee. damay ragal film bi jaar fi jeex. non Dior moo amagul chance su am bonheur. ah Dior day mbégteem xam naa ci fin wu film bi la mais du instant bi de ndax c'est la deuxième fois ñuy tenté yàq mariage am première fois bi dese yaayam la woon deuxième fois bi aussi ñu ñëw di ko indil naka moo ko a ñoo bokk benn baay xam nga yooyu noonu dina dina dina xaw a takku suuf de. no non alalu Fandiaye Inde mi ngi si Pape Birahim papay Madior déggoo keroog mi ngi koy wax moom ak yaayu Madior ak Garmi. kii xaalis alal bi moom moom la Pape Birahim yor même keroog istri bi Madior di wax ak moom ci douche bi mu naan ko secret bi dañ ko garde ndax bés bu jëmee kaw suñu alal bi yëpp di dinañ ko perte alal bi moom Garmi nag xaw ma fu mu ko xam astafurlah may sa xaw ma fu mu ko xamee xëy na peut-être wax nañ ko duñ ko topp étape par étape mais en tout cas am na ko ko wax moom moom te Pape aussi xam na ko Madior xam na ko. ba pare muy set mu naan solu a mariage man ngay keroog bande annonce bële paase bële lañ ko lañ ko wane woon mu sol robe mariage bi ma wax ko ñu ne ma solu mariage ma ne lii robe mariage seetaan naa bande annonce bi bu baax robe mariage la sol ko ba suuf dafa gudd ci suuf dafa gudd waa yaama yaam nag affaire bi ne metti si moom ba pare mu ngi bëgg mu ngi bëgg weddi lu mu defoon na te lool du yoon. non Cissé duñ ko bañ a ba duñ ko waxal dëgg xam nga nit ku nekk da koy waxal li nga xamante ne nii mooy kéyam ci film bi mais yaa moom moom sincèrement parler joor sax yaa moom moo ko dàq sañs wóor na yàlla moom moom macha allah moom wax dëgg yàlla dafa mën sañse te encore sañse du la jàpp yow yaay jàpp sañse xaw ma sañse doo ko jàpp moom moo lay jàpp yaa nag moom sañse moo ko jàpp non joor fi mu jaar la yow tamit yaru mbedd la <laughs> yaru mbedd ak yaru biir du ñu benn joor ay góor rek la daan àndal yaama nag moom yaayam mi ko taf ci wetam rek taf ko tonton Birahim ku joppeer loolu moo tax non xoolal bu fi nekk de xaste naan dafa góore waaw couple Madior ak Dior moo dàq bon yow ñuy sagal yaama rek ngay nekk fii di ñoddi nga xëcc mën da naar comme li ma leen waxoon rek bés bu xamee ne ki mu rey ramu jóob seexam la ragal naa man naar awma yaakaar ne dina eggale film bi de man de awma yaakaaram soit ci film bi moom dina ci dee ndax am na yenn jëftin yoo xamante ne nii doo ko def ba pare yàlla bàyyi la ngay survivre ci sama yaakaar daal ñëw naa nag ngir ñu Pirlo seetaan naa théâtre bi aywa ku mu neex na commentaire waaw ku mu neex na commentaire ndax léegi mën naa commentaire nii yéen waaw waa Kumba namu naa la nag namu naa la namu naa la ah fu ma nekkoon de moom ah xam naa ne dooma fiire salaamaaleykum waaye gis nga yaa ma gën non man gëwma yaa ma bu yàqee bu nee joor tamit maa ngi ñoo bokk pàpp bu ko joor xamee gëwma sëy bi yàqu de parce que joor wane nañ fi mu demee ba sëy si biir kër gi xam ma wax ji nan lay demee après gëwma daal sëy bi tas gëwma ko de ah joor lañ wax de yaa ma bu dee gàdmee ko jur tamit moo ki parce que moo kii sekkuñu dara dañoo mos a sekk dara taxoon naka waa seen sëy xuloo rek lañ daan dëkk wax ju neex musu ko see am tamit ah, gis nga maa ngi doog a teew de yaa ma gën a xam non Mohamed mariage eh, joro ma jorom bu amee tamit sax eh, mariage joor ma joor moo gën a ànd joor ak ma joor yaa ngi leen si xamul nag mais li kanam raw du bët dina am maajoor dina ñàkk yaama dina ñàkk joor del xool rek ndax euh, alal ju mu pàppam foo mu feeñ te te bul fàtte ni kii nii naar da di sonal après da di sonal dina leen sonal bu baax sax te kii nii bu xamee ni ñoom may sa bu xamee ni kee moo papa moo jël alal jooj noonu foofu tam dina xaw a muy ñàkkee joor loolu mënul ne sax nu mu koy ñàkkee kon kay nekkatul joor ak maajoor film bi mënul nekk joor ak maajoor xanaa maajoor a joor lañ wax de mënu koo si yoon niñ ko joué dëgg yaa wow mooy yaa parce que moom tamit bu demee ba xam ne mag yu bon yi muy def yëpp magam la ko doon def bu dee ñoo bokk baay ibon yi mu doon def yëpp magam la ko doon def magam la doon jël def gis nañ ko fi ba taay maga rakk yu bokkoon far anim tey jii far bi dafa dem ba nga xam ne mag ji la bëgg mu bàyyi ko fa bàyyi fa rakk ji takk mag ji wala mu takk rakk ji bàyyi fa mag ji te gëm naa ne maajoor mag ji lay takk bàyyi fa rakk yi parce que rakk ji moo doon def yu bon bu doon ku mag jee doon def yu bon mag jëla fay bàyyi takk rakk tey na rakk jee doon def yu bon waaw moo faat ba kenn ak yaay te yaayam ba muy def accident bi xamul ne sax seexam xam la faat te bis bu ko xamee moo tax ma la problème dina am yaa may saa yi tiitagul de aara ba mu xam ne yaayam si la bokk foofu lay gën a tiitee nag mais laay lu nga wax dëgg de naar moom foo mu génn dafa mooy neexal film moom mooy ruubikat film moom ah, bu amee day neex <laughs> mais bu dee foofu ñoo xam ne duñu ruube film bi neex naar moom foo mu génn moom mais kumba benn affaire tamit am na xanaa xooloo poté marisu poté marisu marisu ak pot duñ mujjee de xaw ma nag mais dina tas de dinañ tas seyaat wala ñu tas dinañ tas seyaat wala ñu tas daal ñaaree daal laay man li Amina wax rek laa gëm gëm naa ne ah bu si si film bi nii nii nii ba mu jeex te deewu si dara paralysé wul dara amul daal ma xam ne naa daa mbër dina am lu daal nag bu paralysé wul dina dee si film bi gawma mu àggal fi waaye bu deewee tamit day bàyyi fi doomam doomamay gën a sonn moom la moo tax man noonu la yàkkamte naar génn naar bu génne la film bi door a neex parce que naar bu génne la film bi door a neex kër gi ak maa joor yaay maa ak yaa ma si kër gi <laughs> xam nga gu bëri si laayam foofu gëma ni joor baajoor ak joor dinañ continuer ndax xama la moo tax ndax euh, affaire dafa am benn secret boo xamante ni maajoor moo kii papam moo yor kii nii boobu noonu affaire dina tourner carte gi day tourner. naar moo koy ruube mooy neexal film parce que yi fi bandi yi def rek yaakaar naa day neexal film waaw bu génnee tamit de hmm, li fay xaar baax na ah, kon baax moom de pare waajagul pour pare waaw na xanaa bu xamee ne moo lay seexam dina bàyyi yi muy def ndaar est-ce que après du bàyyi sax yi muy doon def nii kumba naar mun na nekk de mun na nekk mu dee ba am paralyse mu yooyu balaa benn daam maa joor yaay moom duñ ko nettali ñoom dina sonn trop ñoom ak joor yóbbu naar génne film mi neex ah baax na yow sa seex xanaa ne yow ma day dem rey ba ne waa beneen bi seex bi de moo gën a pare xam nga kee dafa daloon yaay joo dafa dal waaye mama Bandeh rek ay bala nga kaa rey mu rey loolu moo amul problème pour yaa ma joor ak maa joor dinañ am problème bu rëy dinañ problème bu rëy waaye man gaw ma joor ak maa joor seen defe naa garmi taxaw de parce que nee ñëw na pour protéger doomam ak jarbaatam xaw ma nag lumu xam ci affaire fànjaay indo bi parce que moom ak Rama Jum am na luñ ci xam